bismillahi irrahmaani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasala allahu wasallama ala sayidina wa xabibina wa shafiina wa maulana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa saxbihi wa sallim ixwati ilkiram maali l ulama asxaab alsamaha asaaba siyaada asaabal fadilati asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi tedd yi déglu ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar di leen balu àq di leen baal àq di ñaan yàlla yal na nu yàlla boole jéggal Sud FM seen rajo 98.5 kaddu gi bàyyi ko fii ci Ndakaaru dellu siwaat na ak yéen seen émission bi ñu tuddee.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 lu nu am yàlla nu am yàlla lu nu ñàkkit yàlla nu am yàlla yal na yàlla gën a sàmmal boppam yal yàlla gën a aaral boppam yal yàlla gën a téyal boppam bi jaay sayyidil wujud wa alami shuhud tabaarakallaahu ñoo ngi ñaanal suñu bokk yi nga xam ni ñoo tëdd ci lali hôpitaux yi di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala na saafara leen delloo leen ci seeni sago tabaarakallaahu di ñaanal bokk yi nga xam te ñoo jiitu ji yal na yàlla yërëm leen te xaar leen àjjana di jaal seen bokk di leen massawu ci tiis yi dal ci seen kaw ndax loolu yàlla kenn du ko naqarlu dees koy tiislu rek waaye deesu ko naqarlu ndax yàlla tooñul kenn li mu jël moo ko moom li fi desit moo ko fi bàyyi ginnaaw li dem lew na ko doom li fi desit lew na ko doom kuy jëlloo moom kenn du téye sa loxo sañees naa ñaan nag yal na àpp soriyaantoo yal na àpp soriyaantoo yal na yeex yal na nu ko yàlla defal bi jaay sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi nu ñëw yéen nag fa ñu yamoon ak yéen ci qissatu luqmaan alxakim mi nga xam ni yàllaa ko jox xikma fa tabaarakallah déggoon ngeen ñu moom luqmaan na mu préféré doon ku xeebu ci bëti nit ñi waaye tam doon ko saf yàlla doon ko rëy ci bëtu yàlla te loolu am na solo lu jar a bàyyi xel la bari na ku saf lool nit ñi génn ñépp di yiimu ci yow te fekk na ab gunóor la ëpp cër ci yàlla loolu nag lu jar a moytu la ci loolu laa doon wax maamaaram bay wax sëriñ Babacar Si radiyallaahu taala anhu ba ñu ko nee euh, comme sa wajur si xaj may génn àdduna te jotuloo miin taalibe yu mag ñeeg dëkk yu mag yi nga ñëw ñu wane la munu leen ngeen wane ma ak bàyyi ba yàlla wane ma lu gën te la waxee nag ni bari pexe saf yàlla ko gën bari man-man ba dugg ci bëti nit ñi te gis nga loolu dafa am léegi ci xale yi bari man-man créer bëgg a doon star bëgg fës fés ñu bëgg laa gis def ay simulation créer ay nangam dugg ci Facebook bi sànni ay kàddu wax nangam nangam yooyu dafay dafa dafa dafa téqatal ndawi jamono mag ñi ne ñoom bu jëkk da nga daan jàng ba pare toog ci suuf ni cel say mag nekk fi xëy na nga raw leen sax waaye doo doo sañ wax nga teg ca baat moo tax boo ayee rekk ñépp nangul la boo ayee rek ñëpp nangul la loolu dafa solo gis nga koo gis mu ayee ñëpp lànk ba ba ba dafa dafa lànkaloon ña aye woon te jiitu te te ñu jiitu ko mu tax bari pexe saf yàlla ak gën muut muut muut muut muut dugg rap rapi dem dugg génn complot wax dikk rek pour rek yow nañu la yëkkati nga tax ñu ràdd ci kanam nii bari na boo ko waxee ak def ko ba toog sa toogin du neex waaye li gën a neex mooy ñëpp toog ñu ne leen jox diw wala na leen jiital diw loolu c'est très important loolu moom la Luqmaan préféré gis ngeen Luqmaan itam ci biir wax ji eh, taawusul yamaan yi mu doon boroom xam-xam kon Luqmaan soisir na xam-xam ak xikma taawusul yamaan gi déglu ngeen invitation bu rëy bu mu defoon woo boroom xam-xam yépp ñu ñëw ba mu des taawusul yamaan yi Daawus nag ñëw nuyu ko waaye la mu bëggoon digg ci aw tagg ak nuyoo jox aw tur yi nga xamante ne ñooy xew léegi Daawus joxu ko buur bi muy Jaafar al Malik ñëw rek ni asalaamaaleykum yaa Jaafar Jaafar nag bi ko Daawus ne asalaamaaleykum yaa Jaafar mu ne ko mais yow da nga lu looy wàññee sama daraja looy wàññee sama tur loo may iñaane mu ko déet iñaane parce que amirul mumin bi ngay wat sa bopp nit ñi yëpp ànduñu ci def ko defoo élection même boo defee élection sax du ñëpp ñoo la ko ñoo la ko jox yow fi nga toog jaasee la fi teg ak i fit ak i xeex rey ñi sànq ñi ba ni faax toog kon man moo nee <laughs> son excellence wala ma koy teg ah li bëgg fi mun ko amee bu ma ma sama baay bopp dàkkantal ma sama baay mun ko sa baay ni daal ku ni maa jur te du yaayam du yàlla ma fekke mën ngaa juum li ma wax daal moom daal moom a wér wóor na man daal ni jaafar nga tudd moom lañ lay wooye moom ngay wuyoo loolu daal mën naa ko buur bi ni tëj leen ko dafa réew ñu ko ràcc tëj dañ ko tëjee ah, yëf yi tas mais buur bi tëdd tëdd mënta mu jéem jéem nelaw mënta nelaw daan ni garde bi nañ dem ngeen ngeen génneel ma waajo ñu tëjoon ci suba ñu indi ko taawus ni ko ah, eh, maanaam jaafar ni ko wax dëgg yàlla jéem naa jéem nelaw mënumaa nelaw seet naa seetantal naa xam naa ne li ma wax dëgg la ndax wax ji neexul mais dëgg la li tax nag ma mujj fii mooy ñi ma nekkal ñëpp dañ ma dul wax dëgg ndax dëgg gi nga wax mosuma koo dégg lekk na nanga nangami at kenn mosuma wax lu mel ne lii kenn mosul dëggalante man bopp ku dul yow loolu ak affaire bi rek bett ma diis ci man mais franchement li nga wax dëgg la léegi nag dama la bëggoon génne nga toog fii man lay daggal salaire nga di ma wax dëgg suma juumee ndax mu mën a xam suma bopp xam nga dèjà boo doon ko baax la ndax moom sax bëgg na ko koy wax dëgg mu ne ko bàyyil ma toog fii sawet di la wax waaye bul ma fay. ndax soo ma dee fay ba ma ñam xaalis bi xaalis bi nekk lu bari nga ni ma ko fay bu ëllëgee pour bëgg xaalis boobu gën a doon dana tax boo juumee duma la ko wax man am naa feneen fu may jëlee salaire furuti nga di ma fay kaay ma ma lay wax dëgg ma di la fay xel mënu koo dégg njàngat mu réy mbokk yi mu yaatu ci toppal nañ leen ko toppal nañ leen ko ba nga xamante ni daawuda alayhi salaam waxoon na man ne ko dëgg-dëgg yow daal Euh, tuubaa yaay luqmaan tuubaa la yaay luqmaan wutiital xikma wa shurifa ankal balaa yàlla daal jox na la xikma yàlla musal na la ci balaa ndeysaan moo tax mbokk yi cër yi yàlla di def ci jaam du cër yoo xamante ni lu ñuy jënd la yàlla mën ngaa am sa mbindaan saa wu raxasal la sa oto fompal la ko siire la say dàll hmm, ubbi la sa garage nga dem mu defal la sa jardin hmm, dagg xob yi buub kër gi kii ñëw raxas toilette yi defar ba mu ne bay te bu guddee mu dem fanaani aras doo ko yëg mu dem fanaani aras doo ko yëg gën la fuuf ëpp la maqaama fuuf gën la neex yi gën la saf yàlla fop te doo ci xam dara loolu mën na am doo ko xam an loolu muy firi mooy ndax garab gi yàlla gii doon pénc garab gi yàlla def pénc mais wax nañu <laughs> lawbe du ko gis ba di ko dagg garab gii doon pénc lawbe du ko gis ba di ko dagg xool yonent yàlla Muusa na toog na lu yàgg ni bépp liir bu fi juddu nañu ko rey ñuy rey liir yi di rey liir yi <coughs> ba rey lu ëpp cent vingt quatre mille nangam ay liir te bañ liir bañ bañ liir juddu rek ba folle nguuram moo tax mu lu ko def xanaa kon kon ba Moussa falangoo falang ba ñëw këram déb liir xanaa kon mu war koo rey waaye garab gii doon pénc law du ko gis ba du ko dagg xale boobu mu doon mu doon yoroon ci këram moo mujj doon mag yàlla def ko yonent mu dal ci kawam labal ko ca baxru xalsuum nguuru waa Égypte ga jeex waa Israël moom seen bopp kon garab gii doon pinc kenn du ko gis ngoog kon yaakaar naa ni mbokk yi Luqmaan mi féet nag yàlla Luqmaan mi far nag boromam subhaanahu wa taala waaye luqmaan li tudd ñu luqmaanul xakiim ku amoon xikma la wax na nit ñi jaam la nga boroom xam-xam yi ñoom dañuy werante am na ñu waxit ni axun li ayuba alayhi ayuba am na ñu ni eh, luqmaan mii mbokkam la am na ñu wax loolu am na ñu wax ni fekke na yonent yàlla yonent yàlla daawud salaam ndax moom sax moo jiitu daawud am na ñu dund na junni at yu mat sëkk kon xam-xam eh, boroom xam-xam yi dañuy faral di wute trop ci taarix mais soo ragalee lool jam-jam wala weddi nangam daanaka di nga dem ba doot loo wax histoire dootoo wax taarix ndax li dal Arabie Saoudite mooy lu ñu la wax nga ni maaruf fii ni ñoom amuñ benn œuvre amuñu dara lépp la ñu daaneel même kër gi nga xam ne fii la yon bi sallallahu alayhi sax daaneel nañ ko raase yëpp mënatoo xam kër Abu Jahl xanaa kër Abu Jahl moom foofu moom fa la duusee nekk ak toilette yi muy muy kadoom waaye à ñu xàmmee fii muy kër Omar wala xëy fii nangam nangam loolu jafe jafe xanaa ña fa yàgg dem xalaas ñoom Alioune Sall gi ñoom Moustapha Niang ñi nga xamante ne ñoom yàgg nañu dem foofu ñoom mën nañ ko xam. ak ñeneen na ñeneen moo tax ma la ixtilaaf ulama yi wuutee boroom xam yi xam yi soo koy topp ba yàgg di nga dem ba ragal def taarix wala nga ragal def histoire ngoo ko moo tax euh, Luqmaan sangam xëy na xëy rek bëgg koo déglu ndax xam-xam bi mu am yëpp mi ngi ko feeñu ci gént gi ma doon nettali te mu malaaka ma doon ko doon ko introsé di ko laaj ndax bëgg nga yàlla def la ab yonent ci émission yi jiitu déggeen ngeen réponse yi ci man indi woon moo tax sangam dafa xëy rek woo ko ni ko euh, yow dama bëgg nga indil ma li gën a bon ci àdduna bi loolu rek laa soxla mu xëy dem euh, seeraas jubalul fenn de mu xëyee dem seeraas jënd fa mel na xar rendi ko dal di indi làmmiñ wa ak xool ba indi làmmiñ wi ak xol bi sangam ne ko ah lii mooy li gën a bon moo gën a moo gën a baax ci ci ci ci ci àdduna bi mu ni ko waaw mu doon ñaari fan ba ñetti fan mu yónniwaat ko ni ko la demal nga indi man li gën a bon ci àdduna parce que da ko indi li gën a baax mu indi làmmiñ ak xol ci beneen si yoon mu yónniwaat ko demal nga indi ma kon li gën a bon ci àdduna bi parce que boroom xam-xam la woon mu dal di dem rendiwaat gàtt indi làmmiñ wa ak xol ba sangam na ni ko non bul ma jaaxal ndax lamiñ moo gën a bon ak xol moo gën a baax ak xol loolu nan la mën a deme mu ni ko waaw ndax lamiñ maanaam xol mooy li gën a bon su fekkente nii bon na te xol bu bonee lamiñ day bon ndax làmmiñ mooy porte parole xol xel mooy dem rooti bu xel rootee lu nëx indi jox xol bu xol dee fuddatu lu nëx loolu bu làmmiñ dee wax loolu lay wax moo tax yooyu suñu borom bu ne wala xadd këram naa bani aadama dëgg dëgg maa teral doomu aadama li mu la terale mooy xel mooy niit lu nëx ak lu nëxul moo tax ñu bëgg xale bi ñu yar ko yar la yarub lislaam yar la yar boo xamante ne nen yàlla nee na alquran nee na mag ñi baax ni nee na waaye waxu ak ab boo xamante ne ni dafa notoon àdduna bi rek ak ay kënoom ak ay fetalam xëy xëy xëy ñu jàng leen ma jàng leen sama maam ñu ni kon nan jàng moomu njàng defe ni foofu mën nañ fa am mbaax wala mën nañ fa am euh, xel mu baax déedéet bépp xel mu lay xalaatal te xalaatalu la yàlla xalaatu ak mujj xalaatula bari barsa xalaatu foo jëm ak gëm ni fii ay tool kenn saxu fi mépp xel mu lay rootal leneen lu dul lii ma nga lay nax ndax fii du du ay du kër kon tabax yu rëy yéeg titre foncier yu bari yéeg oto yu bari yéeg yépp day jeex kenn mësul gis fukki kër fukki titre foncier nga téye ko juróomi 4-4 mais loolu kenn mosu ko gis te yaa ngi romb ñu yor am sareeti mbaam romb ñoo xamante ne du amuñu sax paas oto bu leen yóbbu Ndakaaru nga leen romb foo ko jëmee denc ci banque bi ay milliards foo jëmee milliards loolu bu doon ne xel mi lislaam di yar la duñu xalaat loolu waxuma nag xel moo xam ne lislaam day yar bu suba àdduna yar nga màgg ci diggante boobu nekk mu zabzabi na bay na zalik laa ilaa hawlaay wala ilaa hawlaay ñen ñaar musal ci loolu mu ni ko kon loolu la gis nga loolu tam dafay daal di fekk xadis bi nga xam te ne yonent bi salaa sallam bi mu ñëwee daf ko daal di dëggal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna fi ljasadi mudgatan isaa saluxa saluxa aljasadu kulluhu wa in fasadat fasadat aljasadu kulluhu alaa wa hiya alqalb mu ni bokk na ci yaram ci jëmm doomu aadama lumb boo xamante ni bu baaxee yaram wi lépp baax waaye bu bonee yaram wi lépp bon ñu ne ko lan la yaa rasulullah mu ne al qalb mooy xol xol bu baaxee yaramu doomu aadama lépp baax xol mooy chef de village su cër yi tous les membres du corps mooy sa chef de village bu xol nangoo foo yónni cër mu dem waaye bu xol bañee foo yónni cër du dem wa an zuhayr ibn abi salma radiyallahu qaal lisaanu lfata nisfun wa nisfu fuaaduhi lam yabqa illa suwaru laxmi wa dami yeneen ci zuhayr ibn abi mu ne dundug doomu aadama mooy genn wàllu làmmiñam genn wàllu làmmiñam la ca des mooy xolam làmmiñ ak xol bu dul loolu nag dara desu ci lu may yàpp ak deret làmmiñ ak xol mooy nit à part làmmiñ ak xol la ca des yëpp yàpp ak deret moo tax yonent bi sallallahu alayhi am na fukki at ci biir màkka di woote te li mu doon woote booba julli julli rek ma wàcc waaye koor wàccul asaka wàccul xaaj màkk wàccagul jihaat wàccagul mu des fa fukki at ak ñett yoo xamante ne liggéeyam yépp xol yi la ak làmmiñ yi xol yi la ak làmmiñ yi dugg ci xol yi jaam yi defar defar làmmiñ yi ci loolu rek la doon dox moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man waqaahu llahu charra ma bayna rijlayhi wa charra ma bayna shafatayhi daxalal janna ñaara ngi nii ku ko sàmm ku ko wattu ba mu ñoŋ nee na dee rek moo la tee dugg aljana dee moo la tee dugg aljana ñu ni ko lan la mu ne li nekk si diggante ñaari tànk te mooy pay sa awra ne na ku sàmm sa awra aar ko ba la ca war rekk nga di ko ca war nga war loo ko ca sàmm sa ñaari tuñ yi li ci nekk muy saw làmmiñ ba du wax lu waxuwul du wax lu taalum pinc du wax lu yàqub der nee na yii ku ko sàmm nee na yàlla dana la warlul aljanna ngoog moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam est-ce que am na lu mën a dugal nit safara lu làmmiñ làmmiñ rek moo mën a dugal nit safara à part loolu amul leen lu mën a dugal nit safara moo tax nañu moytu wax mbokk yi wax baaxul ana moytu ko wax wax ju wax ju bon eh, moo tax Omar ibn Khattab radiyallahu taala anhu daxala Omar ibn Khattab ala abi sadiq fa raahu yajzubu lisaanuhu fa qaala lahu ma haza fa qaala innahu awradani mawarid Omar ibn Khattab radiyallahu taala anhu ñëw na di seet si abu bakrin sadiq yenn yàlla boole leen gërëm ñoom ñaar nee mu dikk fekk eh, mu dikki fekk Abubakar Saddiq xëcc ci làmmiñ wi di ko diri di ko xëcc di ko bës nee na Omar nee na maa daal di waaru ni ko waaw yow looy def nii mënu ko sama làmmiñ bii dina ma dugal ci alkande ndax dama seet seet xam ne moom mi képp ndax ni mu boye ak ni mu ñemee xuus ci ay wax ak ni mu ñemee wax loolu tax mu di ko xëcc di ko wax naan ko yamal rek leel del wax lu ma la wax loo <laughs> ndeysaan ah moo tax Omar daal ni waaw fa iza kaana haza xabaru sidiqi lasi faddalahu fawqa suraya faqad xarasahu llahu min suuin wa axbarahu anhu sadiq bi mazidil kamali allasi laa yujadu fi xayrihi mimman talaat alayhi shams baadal anbiya fa maa baalu ko bi xayrihi mu tax Omar ibnul Xataab daal ni waaw ndegam jëmm ju baax ji nga xam ni moom la yàlla tudde siddiq yàlla gënale ko ci mbooleem saxaabi yi wër yonent bi sallallahu alayhi yonent bi wax ni jant tiimul ko gën abu bakarin ginnaaw yonent yi sallallahu alayhi wa ndegam moo dem ba tiit ci boppam te xëcc ci làmmiñam te xam ngeen ni loolu njàngale la waaye Aboubacar melul noonu mu ne waaw Fama Baara ko yow naka yow bi nga xamante ni da mel ni Alioune Mbaye nga xamante ni nga dégg rek turu jaambur wala yi fi jaambur ba ne ca cabax te xoolal ñun suñu jamono bi fi ñu toll daanaka daanaka bu ñu xëyee ci wax la ñuy xëy ci wax la ñuy gont ci wax lu ñuy fanaan bu doon sax dañuy wax lu ñu xam wala ñuy wax lu suñu yoon nekk sax xëy na peut-être mu neex a lijjanti. mais dañuy xëy di wax lu nu xamul di xëy di dugg ci lu nu xamul di xëy di gont ci dere gor yi di xëy di yàq dere nit ñi am ñu ci am salaire am ñu ci amee kër am ñu ci amee gaasuwaal ci yàq dere gor ak wax lu ñaaw ci dere gor loolu yàlla na ci yàlla musal moo tax ñu sukkandiku ci loqmaanul xakim ci defarug làmmiñ yi nga xamante ni noonu xakim la woon te wax ni làmmiñ ba ko sangam yónnee ca àdduna bi ni ko wëral ma lu gën a baax ci àdduna bi nga indil ma ko indil ma li gën a bon dafa dem seeraas rek moom directement jënd dafa gàtt ñëw rendi ko génne xol bi jox ko ak làmmiñ wa mu ni ko dem indiwaat li gën a baax mu dem jàpp gàtt rendi ko indi xol bi ak làmmiñ wi mu ne ko waa lii nag mu ne ñaar yi ñoo gën a bon ñaar yi ñoo gën a baax ku yar da nga yar xol yar làmmiñ boo yaree xol ba xol bi màgg màggale liimaan màgg ngëm boobu xol làmmiñ wa ci nekk du wax mukk sofaan du wax mukk musiba boo demee ci sunu kër sëriñ si walla nga dem ci daara yu mag yi mën nga fa nekk ba jóge fa sëriñ bi toog ci biir mbooloo mi am ku ko soxla mën naa ñëw wax ak moom ni ko rukkul ndey wax ak moom mu tontu ko ba dem te doo xam la ñu wax booy même booy xool suñuy aada sunu mag ñi avant lislaam doon am nii seen yaru cosaan da boo demee ci lël yi lël daan xarfal dañ lay dugal lël lël jàngal la waxin jàngal la xoolin am ay kàddu yoo xamante nii dañ la koy jàngal jàngal la yoo xam ni yi fi maam yi la yëpp day delluwaat ci éducation de base nga xamante ne da ngay xam toujours foo toll nooy demee bu dee ci militaire yi am nañ boobu yar militaire yi boo xoolee suñu militaire yi rek caserne bu nekk ak na mu tudd ak la tax ñu tudd ak loon ba ci oto yi seen centre de yi bu ci nekk ak na muy tudd bu ci nekk la muy firi boo demul quartier ba ñuy firi la ko doo ko xam wala nga am ti ku ku yàgg ci quartier te xam ko te laajee la ko biir doo ko mën a xam. léegi camion yi la romb rek nga defee ni camion yi ay oto la yu def essence mais am na lu muy loolu mooy éducation de base mu ngoog kon ba la nga naan toog bu jëkk gan ñëw ci kër doo ba ba gan gi dem ñu woo la ni la gan gi fi ñëwoon nu mu tudd nga ne ko xaw ma ko de seetlu ko nga ni ko déedéet mu ne lan la sol nga ni ko déedéet seetlu ko ko man de xooluma ko sax gisuma ko waaye gis nga bis boo dof dof la ba ne ah, gën gi ku góor la ku góor la ku njool te ma sol xaftaan bu weex la ilaha la yow doo ko dolli luy sa yoon ci gan gi ba ngay xool la mu sol daañu la kaata xam nga kaata daañu la domp ci lupp domp la kiitu laa kiitu ba sa tànk yi lupp yu xonq curu deretal boo liggéey boo gisee lu sa yoon nekk ak lu sa yoon nekkul daa ko xàmmee yooyu la ma ngi daan yare mu ngoog loolu tax yonent bi alayhi salatu wasalaam qaala alayhi salatu wasalaam rahima imraan takallama fa ganima aw sakata fa salima yàlla gërëm na ka nga xam ni jëm gërëm nga jëm da nga xamante ni mën naa wax ba jàmm am wala nga noppi te mucc koo xamante boo waxee sa wax jur jàmm sa wax jur juboo kuyete comme ni ko imam moon sekk di waxe am dal loolu ñoo ñoo war a wax waaye koo xamante ni boo waxee yet jug wala fasi buur njaay jóg wala pelante jug noppil da war a noppi da war a noppi moo tax sang bi alayhi salaatu wasalaam eh, daan na wax bu ngeen dee waxtaan ak ñi nga xamante ni yéen ahlul kitaab maanaam chrétien yi ak juif yi nee na bu leen leen di offensé bu leen di bu leen leen di manqué respect waaw ngoog wala tujaadilu ahlal kitaab illa bi latihi ahsan bu leen di weranteeg ahlul kitaab bi lu dul ci lu rafet comme ni ma niñ ko ubbee sànq ndokkeelanteeg ñoom weegalanteeg ñoom joxante ak cër boo leen joxee cër ñu jox la cër boo leen wàccee seen wàccuwaay ñu wàccee seen wàccuwaay éducation boobu la ñu war a ci suñuy doom ndax dañoo dépassé fu ñu tolloo maa la gën lekk maa ne ci dëgg la lakum diinukum waliya diina ja mooy tax yow xasee ba jàng ba miin am na loo xamante ne da koy dépassé mais doo nekk toujours rek ci daawa boo xamante ni à bas la non non dafa am ñu ko moom góor-góorlul ba yar ñi nga am ba ëllëgi bu ñu taxee ci kanam boroom rek nga mat jaam bi boroom waaye contrôlé wuñ la ay jaam ni yow par force ci lii walla par force ci laa déedéet na la sa bopp doy rek. ku sa bopp doy rek incha allah doo dugg ci yëfi kenn doo contrôler kenn moomoo jaam ñi bindoo leen santoo leenu jaamu doo leen fay doo leen rey doo leen dekkal moomoo àjjana moomoo safara jaam nga ci biir jaam ñi demagoo ba yàlla fay la ba xam baax na wala baaxul tiital ci sa bopp te bàyyi jaam ñeeg seen boroom faalun li ma yurid Seydil Hadj Malick si radiyallahu taala anhu dégg naa ndeysaan ca mbaax ga ca ragal yàlla ga arif billahi maam Maram Njaay sa maam Sidi Haj Malik ndeysaan dégg naa dafa am benn waay foofee ca Tiwaawan danaa naan sàngara waaye bu naanee sàngara day ñëw ba jub mbalaanum wasifa wi di di perturbé bu ñëwee nag bi naan allah allah muy muy muy perturbé ah ana ko ma woo ana ko xame ana ko xam mi xëy xala <laughs> ngeen baal ma du séeréer nag ab tukulóor la <laughs> ab tukulóor la ma ngoog ba paa yi mer dégg naa ñëw na ci góor gi ni ko diw daal doon bëggoon nga bàyyi noonu nu bantal ko ndax yi muy def moo ko tey ndax moom mën na def ay ñaan naanam dem fële waaye di ñëw nag di ñu perturbé daal boo ci waxul ñu wax ci dégg naa góor gi tam xam lu si Haj Malik ku ma doon jàngal te mën a yar tam xam lu mel ni ko ci waxul dara rek ba ñu waxaat ko ñaari yoon mu leen baax na dégg naa leen may leen ma fii ak suba ñu toog ci suba ga si xaj ma waxul dara moom ñaari fan ñu ah li ñu doon wax de ba léegi mi ngi di feste te da nga wax ne di nga ci wax te waxuloo ci mu leen waaw yéen laa doon déglu ngeen laajaat ma dama leen di laaj kan moo ma mën a garanteel ci yéen ñii niin bala nga fay jóge ëllëg yàlla du la yóbbu ba nga mel ni moom. kan moo ko mën a garanti ci yéen ñu ne ah, loolu kay si mënuñu koo garanti mun leen kan ci yéen moo mën a garanti ne moom mi li mu nekk balaa moo gaañu balaa moo génn àdduna yàlla mën na ko ci génnee yëlëb ko ci ba mu ñëw ci mbalaan mii ànd yéen di wasifa ñu ne ah, loolu tam de si mënuñu koo garanti mu leen waaw ku leen dóorloo jaamub yàlla bi yàlla def ci moom la ko neex mu mel ko na mu mel yéen yàlla mel leen nii da ngeen yaakaar seen njàmbaara tax ngeen mel nii ngeen mel ñu ko déedéet mun la ngeen yàq seen góor-góorlu tax ngeen mel nii ngeen mel mu ne ko déedéet hmm? yahdi man yashaa wa yudillu man yashaa yàlla mooy jubal ku ko neex mooy réeral ku ko neex bàyyi leen yàlla ak jaamam te ngeen ñaanal ko yàlla na ko yàlla gindi bala moo dee ci lii ndax gërëmuwul te baaxul waaye nag dóor ak wuti yet ak wut ay ay ay comité d'action di di di dab nit ñi di ngàdd ah Malick garanti wu ko fii garanti ko fi ñu jëm waaye dèjà li sa wax ji maa ngi ko dégg sëñ Abdou Aziz sëñ Abdou comme culture la ci kër gi radiyallahu taala anhu nee na nee na mujj na waajoo ñu doon bëgg a rek bëgg di ko di ko sonal mujj na tuub bàyyi sàngara sa ñëw ci kër gi def formation ba mujj yor sëwee ji Malik bi di di nodd fajar di yee nit ñi. lal mbalaanam wasifa bi di ko lalli guddeeg bëccëg di bale jàkk ji mokket yi defar ba mujj nekk nit ku ñëpp am ci yaakaar loolu war nañu xam baax nañu itam nii yàlla yàllaa ngoog yàlla mën la ne si daaj maa ni mën a jàngale la daawul xuus mukk ci ab jaam di dugg ci privéem walla di weer nit déedéet kooku mooy si daaj Malik waaye bokk na ci mbokk yi euh, yi nga xamante ni day yëbbu day yë day yëkkati garaat lii nga xam day yëkkati garaat sëriñ Tuuba radiyallahu taala anhu eh, wax na ko sëñ Sam Bousso <laughs> sëriñ Tuuba dafa xam ni sumtum wal juu wal dahar wal xala ñeenti ñeenti pënu mooy dawal oto ñeenti ruu yi dawal oto nee na ñeenti yii mooy mooy yóbbu nit ci garaat yi gën a kawe bi yàlla gërëm ñu ne ko yéen la mu ni sumtun noppi rubba xawlin jawaabuhu fii sukuuti sëñ Tuubaa nee na bari na wax joo xamante ne mooy pat bari na wax joo xamante ne tontoom mooy cel ngoog mu ni loolu bokk na ci liy yóbbu yéegati yéegati garaatu nit ñu ne ko ak ban mu ni wal ju ak xiif ñeme xiif ñu ni ko al mu ne xar ak bérélé nit ñëpp di nelaw nga fanaan di la di sëlmal di naafila sëlmal mbaa ngay jàng alquran mbaa ngay xalaat sa bopp di xalaat say bàkkaar di tuub di jéggalu nee na loolu mooy bérélé ñu ni ko ak ban mu ne ak wéet wéetaay lu am solo la moom la si di xaj mari mbokka ma tontu fële ni haza zaman zaman sukuutin wa luzumil fil buyuti jamono bii jamono bu noppi la ak dugg ci biir néeg tëju ni pat wala nga dem ba ca ginnaaw montagne làqatu fa ndax jamono boo xamante ni jamono bu doy waar la boo waxee ñu wax jëm ci yow boo waxul ñu wax jëm ci yow mu ngoog moo tax imaam Shafii radiyallahu taala anhu toog na ci taalibe mi di jàngale di jàngale ba yàgg benn mbokk ñëw fa nit la rek ko xam ne dafa ñëw ku pànk la di xas imam Shaafi di ko xas ko wax wax yu tegginuwul di ko wax yu ñaaw imam Shaafi ni pat rek waxul tontuwul ba taalibe yi nii waaw sëñ bi doo tontu kii li mu lay wax du dëgg fekk la sa kanamu njaboot ba pare nga ne pat imaam Malik daal di ci def benn bëyit nag daan ni xaalu sakatta waqat xuusimta fa qultu lahum inna alkalaama li baabi charri miftaaxun fi sumti an axmaqin aw jaahilin sharafun wa fihi aydan li sawni alirdi islaaxun se digér rek xaalu sakatta waqat xuusimta fa qultu lahum inna alkalaama li baabi charri miftaaxun fi sumti an axmaqin aw jaahilin sharafun wa fihi aydan li sawni al-adli islaahi imaam Shaafi ñoom de nee nañu ma noppi nga yaa ngi ne pat te ñu ngi xuloo yow tontul kay ki ki di rien conscient yéen jàng tubaab imaam Mor Seck boo jógee nga jubbantil ma loolu def naa noonu la ki ki di conscient noonu de waaw koñ ngeen jógee ngeen ngeen jubbantil ma ko yéen jàng tubaab mu ngoog ñu ne nag imaam Cheikh yi wax mun leen waqutu lahum man leen ni ke tontonte innal kalaama ni ke tontonte wax li baabi charri miftaaxun day ubbi bunti musiba tontonte day indi bunti musiba day ubbi bunti musiba nee fi sumti ci noppi an ahmaqin ci ab dof aw jaahilin wala ko xamul dara sharafun taranga la ilaha déglu leen baax wax ak tontonte day ubbi bunti musiba bunti xeex mooy li wax ci commencement bi rek ñu leen réew yu baree ngi takk deret yu baree ngi tuuru ci àddina bi wax a ko indi am na ay kër yu gent seen borom daw làqu ji fu sori wax a ko indi réfugiés yi ngeen gis yépp ci àddina bi ñu leen di jox ay sumbul di leen jox ay café ki meew ay avion tiim leen di leen waddal ay keesi mbiskit xale yi di ko jiiroo xamuñu seen njàng yàqu na ñooñu xam ngeen ni seen àdduna seen yaakaar tas na dérouté nañu leen te wax moo ko indi wax moo ko indi nga gis ci télévision bi ay jigéen ñuy daw boot seeni doom yi ñu ngàbb ay la yu reet yu jeex takk li looyang xale yi xiif seen biir yi seen faar yi nga di ko waññi bopp yi rëy rëy rëy rëy ndeysaan yi ak ñiy dimbalante di leen dox ay garab di leen faj di leen assister pendant ce temps ma ñu ngay dóorante ay kënu di leen di dóorante ay mitrailleuses dara ju bari ca tuur loolu lépp wax a ko indi moo tax làmmiñ musiba la moo tax imaam Shaafi ni innal kalaama li baabi charri miftaaxun fi sumti an axmaqin aw jaahilin sharafun wa fii aydan li sawnil irdi islaaxun ni noppi noppi <laughs> noppee baax yeneen li nga xam ne day ñoŋal deru nit ki di ñoŋal dignité nit ki del yaatal liberté nit ki nee na noppi ci la bokk muñ loo war a faj muñ loo war a faj maslaa ku jikkoom soof dimbali koo xamul nee bokk na ci jikkoy sang moo tax lisa xusimal bu salaasan xol dañu ko séddale ci ñett moom xol al qalbu salim al qalbu al marid ak xalbul mayit ñett yi ñoo ñoo am solo yonent bi salaa wax nañu inna fil jasadi mudghatan wa isaa saluha saluha al-jasadu kulluhu wa isaa fasada fasadati al-jasadu na lumb wu nekk ci doom aadama su baaxee lépp waaye su bonee nag lépp bon na ñu ne yi xol dafa bu saliim xol bu sell te mucc am xalbul marid ak xol bu feebar yàlla nañ ci yàlla musal am al xalbul mayit ak xol bu dee xam naa du fi xaj mais dinañ jéem a dugg tuuti rek ci al xalbu salim mbokk yi xol mooy nit yàlla xajul fenn ci nit yàlla xajul ci pale bi yàlla xajul ci sunu kër yi yàlla xajul ci ci bayaal yi yàlla xajul ci stade yi yàlla xajul ci àdduna bi fenn xajul ci géej amul fenn fi yàlla xaj ndax foo dem ma nga fa lépp mooma waaye nag xaj na ci xolu jullit bi mu bindee doomu aadama ba pare mbokk yi ma jox leen ko mel ni misaal soo dee borom kër yow mi borom kër yow mi may déglu nii yow mii yow mi ne sa oto wala yow mi ne ci kër gi wala yow mi yor sa portable di déglu benn borom kër a ngi nii tabax këram ba kër ga àgg mu def ko R plus jël ay mbokkam dugal ci biir kër gi jël ay doomi baayam jël ay doomi ndeyam jël ay jorbaatam jël leen ñoom ñépp jël leen en charge ñu leen nag dëkk leen ci kër gi néeg par néeg defar leen ay toilettes monté leen ay climatiseur defal leen wifi abonné leen courant ndox abonné leen lépp di ko fay ni leen nag na ngeen dëkk ci jàmm bu leen xeex bu leen xuloo pantre bii ci buntu kër gi sama néeg la bu leen fi dugg bàyyi leen ma nag su ma doxee ba sonn su ma ñëwee ubbi dugg fa noppalu fi xanaa waa kër ga kay lu ñu tëxët tëxët tëxët tëxët xanaa war fa bàyyi pantre ba bokk yow laay waxal de ok xam nga lu ñu def bàyyi ba boroom kër gi dem ñu ubbi pantre ba nga xam ne nee nañu moom pantreem la fa lay noppaloo ñu dem def ko poulailler ganaar di fa yar ay cuuj di fa def ay nen di di jaay ginaar yàq fa mu ngootoot am lu kenn musta gis ba borom waaw su boroom ñëwee nan la war a def nan la war a def mbokk yi ah xaw mu di waaye war naa mer war na mer de waaw kañ loolu mooy sunu diggante ak sunu boroom yàlla bind na lu ñun ñëpp may na nopp ni bu leen fay dara déglu leen lu leen neex may nu bët ni xool leen du leen laaj facture may nu ñaari tànk. may nu ñaari loxo may nu biir jox nu awra jox nu lépp mu nekk suñu disposition yaa ngi dégg léegi nag su loolu amee mu ni bàyyi li ma fi xol xol ma maa ko moom comme moomam xol nag kon xol warta bëgg leneen ku dul yàlla xol warta entre keneen ku dul yàlla xool waree su ci def leneen lu dul yàlla xool yàlla képp lay fees del loolu mooy li war kon mbokk yi ñu def foofu suñu baaraam incha allah ci luqmaanul xakim ci njàngale mu rëy moom mu nga xamante ni mu ngi koy jàngale yàlla yàlla defal ñu jàmm te defal ñu sutura kon nag seen mbokk oustaz Alioune mbay moo nekk ci waxtaan wi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa